xaalis single bu Youssou Ndour ak Akon bu bees bi ñu delluwaat buum sa mboy mboy ga woy bu am njëriñ muy adressé nag benn message bu am solo ndaw yi. way bi dañu bëgg a wan nit ñi ni que liggéey ñaq du réer coono du réer nit loo bëgg euh, am. war nga koo mën a def ci sa bopp ne mën nga ko am waaye da ngay liggéey pour yegg foofu looloo tax ñu bëgg ci clip bi ñu wane wàllu liggéey wane ko bu baax a baax a baax a baax moo tax ñu nekk fii ngeen fekk ñu fii pour ñu ñuy defar clip bi. xale yi moom suñ ko déggee dinañ dégg woy bu neex mais ñu ñu ñu si jël. mooy mu ñu si jëlee mooy euh, référence liggéey bi dara lu nga bëgg ci àdduna du am sans lu liggéeyoo. loo bëgg dina am soo liggéeyee bu baax xam nga góor day liggéey jigéene liggéey nit day liggéey mais mun musuma euh, euh, travail fenn ci ci monde bi gis ma sénégalais foofu di liggéey fu ma mënta dem di nga gis fa sénégalais xam nga ñun moom kenn kenn dàqu liggéey ñun collaboration diggante ñaari waykat yi nekk lu yàgg loolu collaboration bi moom lu importance lu important la euh, importance la woon cim ci man te dama bëggoon réew mi gis um, collaboration bi gis nu ñu mun ne suñ suñ um, suñ suñ bu ñu boolee day am doole lii moom c'est très important la woon pour man quoi parce que xam nga Youssou moom depuis mu nekkoon xale moom laa doon seetaan moom moo ubbi bunt bi pour ñu artistes yëpp Sénégal. win-win la boo dajee sa moroomu artiste da nga koy indi dara moom tamit daf lay indi dara loolu ñu ngi sant yàlla parce que ñun loolu lu ñu gëm la te ensuite ñu koy def nag ak koo xam ne mun nañu doon nijaayam mun nañu doon magam. mën nañu doom ngoom parce que macha allah li muy def def na ko bu baax mu ngi koy def bu baax te bu la yàlla defee nga nekk si si kanam yore li ñuy tuddee flambeau bi wala nga bokk ci ñu yore flambeau bi. bëgg nga saa yoo gestu nga gis ñu la gën a ndaw ñu la gën a jeune nekk foofu pour pare continuer flambeau te économie man gis naa loolu ci moom. koo xam ci Akon di nag lu def duo moo ubbi bunt bi pour ñu artistes yëpp Sénégal bu mën a nekk international xam nga te moom lu mu lu mu indil ci sama xel lu mu indil ci ci ci motivation mënuma ko express ci ci ci words quoi. Mm-hmm. Euh, euh, wolof ci wolof.